naka mu. waaw ñu ngi ziar bu baax a baax a baax waa SDTV. yaa ngi ñu ngi ziar baax ñu ngi sant tamit ñu ngi sant bu baax. lan moo waraloon teewaay waa tey li ñu indi fii tey du leen lu dul intérêt collectif du intérêt personnel. parce que tey ñun li ñu bokk mooy suñu entreprise bi nga xam te ne ku si nekk la ngay yóbbu sa kër fii nga koy jëlee loolu moo indi tey ñun ñëpp ñu boole suñu doole ñëw pour waxtaan ak état bi. ñu xool nu ñu jàppalee tegal ñu ay mesures ñu mën a am lu ñu lu ñu yóbbu suñuy kër boo xoolee boo nga xam ne fi gis nekk ñu ngi ñuy toog ak naaru sogaas champion la parce que tey mbër yi mën nañ bokk adverse adverse mën nañ nekk ay adversaire mais loolu pour benn tàkkusaan la rek suñ ci paree ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay ku ci nekk amal nga sa morom njëriñ ci côté bu nekk moo tax boo gisee doom da ngay mel ni fii ay adversaire dajawuñ fi mais adversaire yooyu laa ja lañ koy dund bu jeexee pare nañ ci chaque jour ñu ngi xool lu ñu avancé loo bokk benn affaire léegi est-ce que sa association bi ngir corona bi kese la wala association bi après day am suivi. waaw loolu day am suivi parce que tey loo gis daa am ci fu muy tàmbalee rek wàññi boo gis si benn lay tàmbalee mais nag ñun ñëpp dinañ ñëw incha allah te affaire yi ci kanam mooy dàq lii. non parce que dañuy gis na mbër yi am na mbër yu bëri bokku bo booloowuñu quoi bokkuñu bokkuñu parce que dañuy gis na par dama laaj après corona bi ndax association bi dina continuer lii nii nekkul pour corona kese parce que lii pour intérêt làmb lii tey pour mbër yëpp la leneen lu ñëwaat wàcc ci mbër yi nii ngay gisaatee ñu boolewaat suñuy doole bokk xeex bi ba mu jeex incha allah. léegi lan ngay wax sénégalais si ko feebar bu nekk corona bi lan ngay ñaax sénégalais yi. waa ñu jël seen i mesure rek jël seen i matuwaay moytu xam nga comme que tey gis nañ ni mu demee ci dëkk bi ku moytuwul mën na laa jural loraange moo tax ñu ngi sàkku ñëpp ku si nekk jël say matuwaay bu baax a baax a baax yàlla mën nañ cee musal incha allah. ok léegi yàlla defoon corona bi jógee fii si saison bi tijjaatee ban mbër ngay laaj. non bu saison bi tijjee kay loolu ñu ngi ko bàyyi ci loxo gars yi rek. Hmm. waaw ñun moom mooy loolu. ku ñëw ku ñëw da ngay def. waaw firi rek bàcc. ah bon ragaloo kenn ragaluma dee. ah dee lañ gën ñeme ka sax dund. yaa ngi si ginnaaw yàlla baax na la ah. meilleur reste à venir. ok jaajëf. xam macha allah loolu nag ak animateur la comédien la waaye bu doon sama sago ah ma damay ñaan ndimbal contrôle la tey contrôle la ëllëg nee kër ba ma fekkee kër Ablaye Wade nga ànd ak Ablaye jour masal kulu da am na ànd ak Ablaye foo sa ginnaaw ba léegi loolu na maa ko téye la karama kon boog man mu ne ko comédien ñu ne ba lépp réussir tey mbas bu doon suñu sago tey tey tey tey mu jeex ñëpp nekkal seen activité tey Macky Sall mii nii nii tey fu mu Sénégal oyof tool si moom na mbas bi jeex mbas bu jeexee tàkk rek gannaaw yàlla Seydina Ahmad salaay salaam rek ak suñu ñaari waajur rek kon suba dëkk bi dina mën a neexal làmb ji mën a réussir man nag maa koy ñaan nañ jéem a xool luñ négocier mbër yi ñu bëre même bu bi bu mu doon xaalis nañu ibbi làmb rek ñu jéem a xool nuñ koy taqalee ba bëree quoi ndax ku mel ni yaawu jaan yaakaar woon dara lu si làmb te ay 100000 lay fay ko 200000 francs te francs yang am nañu seen may investir seen ay kër ak yeneen ak yeneen mais classe yaaw yi nga xam ne daanaka lamb la ñu di indi comédie classe Macky Sall bi ñu ko fekkee couture bi ñu yëkkat xaalis may ko loolu loolu moo nekk sama bénéfice moo dama tournage su musaan am combat su ma bëree ba daan dama jubale ko tribune kilifa yëpp may ma xaalis xam loolu amatul man bu doon sama sago Macky Sall pour réew mi mën a neexat man bu doon sama sago ñu jéem waxtaan ak monsieur le ministre Matar Ba ku baax la nag Matar Ba c'est le meilleur ministre des sports barke Seydina Max man bu doon sama sago nañ jéem a xool ñu négocier affaire yi affaire mën a réussir at waaye man xiiroowu ma ŋaayoo man daal tant que Abdoulaye Wade ñu ngi koy yéene jàmm man daal maa ngi seen waaye ku koy yéene samara nga misiba nga jaar gos mi daal Balla Gaye 2 Boucher Balla Gaye 2 lu mu àndal lan la. ay Balla Gaye 2 ay nee na Balla Gaye 2.